abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam. SK ci noonu nag la Fodé dal de yéemu lol bi mu gisee soxna su tar soosu soxna saa ngi Boba. Mifat di ci jamono bo ne mbolo mi bari na ci jotaay bobo. muy bo xamné ñu ci bari ci ñoom nitu shaahir lañ maanaam ay nitu shaahir lañ dañu solo ay colko yu gàtt góor ak jigéen di fecc di jaxasoo sàngara yi ak li nga xam ne mooy ndox ak li nga xam ne itam mooy jus yi nga xam ne jullit mën na ko naan bari woon na lool am na ci ay benn benn nit yoo xam ne ñoom couple wuñu maanaam ànduñoo góor wala ànduñoo jigéen ñoom kenn rek ñoo toog sol colko gu yiw di naan boisson mu mel ni ñoom ay jullit lañ waaye itam bëgguñoo bokk ci caaxaan yooyu waaye xëy na feet gi mënuñ ko wuutee ndax jotaay ba moo leen ko may wala nekkin wa moo moo ko laaj waaye mu gis sa ku ràññeeku koo xam ne ku taaru la ba mu ko gisee yéemu na ci melokaanam yéemu na itam cofeel gi dugg ci moom ci soxna soosu waaye mënul woon wax wala mu def dara ndax gan la fa woon waaye bi mu taxawee ba soxna si xool ko mu gestu jàpp ne soxna si xoolu ko wërale ay bëtam fu sori ba wëlbatikuwaat xoolaat soxna si gis soxna si ne jàkk si ko ay bëtam mu am kersa nag xel mi daal ne waaw soxna si de dafa mel ni man lay xool ah waa kii moom soxna si de taaru na loolu waaye man lu ma war a xoolee mu jaaxle nag ak tiitaange ku rëy ci melokaanu ndaw si waaye ndaw si bi nga ko xoolee tàllal ko loxo waaye gestu xool ba gis ne moom lay waxal. mu ne ko man mu ne ko waaw mu taalal ko loxoom joxoñ ko baaraam baaraamam ne ko ñëwal mel ni daf ko woo mu xool gis kenn xoolu ko gis kenn liggéentiwu ko soxna si daal dafa mel ni moom rek mooy wax ak moom waaye gis na kenn waxut ak moom nit ñi dañ koy romb di jàll mel ni nit ñi gisuñu ko mu daal di dox moom mi nga xam ne muy Fodé ay jéegoom nànk nànk ànd ak tiitaange lool ak itam di xalaat lan la ko soxna si war a doyee waaye tamit am cofeel ci moom te ñemewu ko bi mu agsee daal di toog soxna si ne ko nuyu naa la mu daal di koy fay bi soxna si nuyoo mu fay ko ci français mu dal di làkk soxna si ay français yoo xam ne daal di seen a jub xamal ko ne ko man de gan laa fi senegal laa laa jógee soxna si ne ko xam naa loolu ci wolof mu daal di daal di tiit ne ah yow da ngay wax wolof soxna si ne ko waaw damay wax wolof mu ne ko yow sénégalais nga ça ko dédé duma sénégalais man malien la d'origine waye nak sénégal la juddo monoko ah no meuna juddo we sénégal ba nopi nek malien d'origine monoko wa ah, parce que sama way jur man nañ nek malien wala sax sama yaay man nek sénégalais sama papa nek malien mo top sama papa l'essentiel dal moy man malien la lu rek la ci meuna expliquer mais sénégal fa la juddo ba mag ba nek as jank su ndaw xamé do la ñew malien mune ah, ko ah ndaysan kon de yow sama mbokk nga ndax wan sénégalais la mune ko ah gis na lolu kay bi mu ma nuru nga ma sénégalais te nuru na may itam ne gan nga xamo fi kenn nonu mu dal ni ko waaw lo won say tank ci bërepp bi nak mune ko ah man day bima ma ci dëkk bi yagul de ab diir bu gatt la wara doon rek mune ko man day sénégalais la ma ngi dëkk Kaolack xam nga Kaolack sonu ci xam na ko bu baax sonu ci ne ko man fi ma juddoo ak foofu sorewul mune ko ah yow fan nga juddoo mu Vilas. ko benn village waa ji nag mënul xam village boobu ban village la li muy dëkk-dëkk Kaolack village boobu ump na ko ne ah peut-être xëy na dama ko xam Kaolack daal village yu bari yoo xam ne wër nañ dëkk ba commune yeeg département yi ci bari xam naa ko waaye nag jëm mi foofu nga wax moom xaw ma ko mën naa am nag may dégg tur bi wala yu mel noonu waaye taxul ma xam waaye nag dëkk baa yaatu te dëkk yi itam dafa yaatu gox goxaan yeeg village yi tasaaroo mën nga am foo xam ne mën nga faa dëkk ay at te ko xam. mu ne ko sii noonu lay demee soxna si wax ko ne ko noonu lay demee mu ne ko waaye waa ji daal di koy tontu ne ko moom fóole ne ko waaye nag li ma indi fii mooy daan doole ndax dama nekk koo xam ne sama mag bu góor laa nekkal am naa yeneen ñaari mag nag yoo xam ne bàyyi lañ bokk suñu yaay dañoo génn àdduna ñoo bokk benn papa sama yaay ane sàngam la génn àdduna ñoom itam seen yaay am ane sàngam la génn àdduna dañ doon wujjee muy aawa ak ñaareel. ñom nak yalla dafa dogal dañoo nek bitim rew suñu borom melen teranga ba ñu miraasee suñu wayjur ñom lañu dem seen mbokk yi seen nijaay ya nek Dakar ñoo ñoo leen dimbalé bañu dem tukki fi mu toll Dakar am nañ fay kër ñu nak ay al borom alal yu bari yoy yoy dedet waye am na leen suñu borom may ñu ci suturlu ñun nak yalla def na ñun suñu wa suñu wa kër yaay sama mbokk yaay yëpp kawlak liñ dëkk manam kawlak moy sama ciosan ci baye ak ci yaay léegi nag tax na itam ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom dañuy yaakaar sax ñu ñu dimbali leen waaye nekkul ne ñoom ñun ñoo leen di yaakaar am naa mag bu góor nag boo xam ne moo ngi tudd diw falaa ko bàyyi moom Cheikh sama mag la tailleur la am na nangami at mag la yàlla def na am na soxna ba am benn doom nekki mën tamit am naa soxna ba am ñaari doom samay doom maa leen fa bàyyi situation famille rek moom Fodé tambali nak ndessane xolam ubbeeku muy rencontre ndaw si histoire am expliquer ndaw si na tek nak diko deglu diko xol beut yo bët beut yu taru la muy gën a lo loo Fodé ci bopam diko ko xemem loo muy wax li nga xam moy mooy histoire am mu wax ko situation yi mu doon dund ba nim mu Mali ndaw ci nako massa way metti na ndaw ci nako bima la gisé rek la sentir situation yoy ci yow man bima la gisé la gis ne ku sonu nga ko da nga bëgg am. noonu Fodé daal di ree na ko noo xamee loolu ndaw si ne ko si nit dafa neex xam nit ku nekk ci ay situation rawatina sénégalais sénégalais li muy mën a mënta muñ de patient amu ko su ñàkkee rek faaw mu wan boppam ne ñàkk na su amee tamit faaw mu feeñ ci moom donc ñàkk googu feeñ ci yow te sa solin sa comportement sa doxit bu ma la gisee rek gis naa loolu ci yow mu ne ko ah kon yow psychologue nga da ngaa am xam-xam da mën a xam nit mu ne ko mën bañ a nekk loolu sax mu waaye lu bëri li may expliqué lu ci bëri xam naa ko. noonu Fodé jaaxle ne ah yow noo ma gisee tey rek nga mën a xam loolu yëpp mu ne ko loolu yëpp may la yàlla da koy may ay nit Fodé ne ko xanaa yow da ngay gisaan da nga am xam-xam wàllu yooyu mu ne ko déedéet man du ma gisaane man nekk ma ci yooyu gisoon ni ma mel nii man tubaab laa dox ma ci yooyu problème bi kay mooy yàlla dafay may nit rek may gis di xam peut-être loolu am may la Fodé xool ko ne ko yow bizarre nga de daal di muñ ne ko waaye baax na li nga wax dëgg la ndax yàlla day may day may day xañe gis nga ni ma xañee. ba tay ji may wër ba agsi fi nonu soxna ci laaj ko ne ko ba nga ñëwee ci dëkk bi amu ben jafé jafé mu ne ko déedéet aw ma jafé jafe nak waaye nak ñàkk naa dal waye ndax marché sangam mbaar yoy nga xamné étranger yi fa lañuy tëdd fa lay fanan amna xaaliss sax mais xaaliss may am dama koy faral di yónnee Sénégal sama frère bi mu koy bari wul ndax bëgguma di garder xaaliss sax ñukoy sacc sàcc damay yenn ay bagage lek ak naan sax talumako man samay ci bonheur rek moma gënal ndeysaan ndaw sab la la koy xool ba mu yàgg daal di jël musuwaar ci pochette am fomp mel ni day génne rongañ mu ne ko ah da jooy xanaa da ma yërëm mu ne ko si sa histoire dafa yërëmtalu parce que dama lay ñeewante lool ndax man musulman laa jullit laa comme yow damay julli damay def lépp bërëb bi ma toog moo laaj ma def bopp neen moo tax ma def bopp neen des fois jotaay day laaj loolu waaye man jullit laa waaye nag am naa ci yow yërmande te itam wax dëgg yàlla bëgg naa la jàppale. noonu Fodé nag ah moo ma jàppalee ma jël loo ma mën a dimbalee ci alal ak wutal ma liggéey bu baax comme yow fii nga dëkk nga wutal ma logement lépp lépp loo ma jàppalee ma jël. noonu ndaw si xool ko ba mu yàgg ndaw si ne ko non loolu du xalaat li tax ma ne la loolu du xalaat mooy yow dëkk bi waroo fee nekk di liggéey maanaam sa wërsëg nekkul fii sa wërsëg fa nga jógee la nekk am na liggéey yoo fa war a liggéey waaye day yéex lool. ndax li la yàlla dina too loolu daf cee bokk waaye yàlla may na la wërsëg bu bari boo xam ne moo ngi ci yow noonu foo dina ko waaye yow dama leen laaj nag sëree xanaa yow gisaane kat nga lii yëpp noo ko mën a xame mën na ko déedéet du gisaane mais yàlla la yàlla day may ay nitam foo dina ko kon baax na maa ngi lay déglu mu ne ko waaye foofu nga nekk dëkk ba nga nekk fa la sa wërsëg nekk foo dina ko loolu mënu ko dégg foofu nga xam ne damay xëy fukki deureum yu ma jëndee kaasu café pour nan sax dum ko am fofu jang jàn jafe ma fa jànkonteel bima ñëwé fi sax jànkoonteelu ma ko ndaw si nako pourtant nak sa ak fa la nek lima lay wax nak luma xam la duma la dimbalé di wutal logement duma la dimbalé itam di jox alal ndax lolu taxul li nga wara am deug deug nga am ko ndax yow responsable nga lu bari dang ko wara yannu ci sa bop bi motax sun borom natula tagat la. ci doxalin bii nga xam ne yaa ngi koy doxe ak coono yi nga xam ne daj nga ko foo dee yéemu lool ci ndaw si bi mu ko gisee ak kàddu yi mu ko wax yéemu ci moom lool nag di xool ndaw si ak taar bi waaye ak kàddu yi dëgg yi mu koy wax mel ni dafa xam dundam ndax li muy wax dafa méngoo ak li muy dund mu ne ko waaye nag li ma lay wax mooy dafa am ñaan yoo xam ne maanaam ñaan yoo xam ne su borom dina dina dogal nga ñaan ko maanaam yow sa xam-xam dafa nekk ci wàllu ñaan ndax sa waajur dala yëboon nga jàng daara dina am xam-xam bu la sunu borom may boo xam ne dana la dimbale lu bari ci sa wàllu wërsëg maanaam li nga xam ne mooy wàllu ñaan xeet yooyu da nga ci am léegi nag dina am benn borom xam-xam boo xam ne yande la tudd Cheikh Yande Kaolack la nekk waaye dëkk fa day ñëw di dem day wër rek kooku de bis boo dajeek moom dina la jox benn secret turu yàlla wala turu jinne sax nag boo xam ne da koy wirda tur boobu bis boo ko wirdawee sa lépp danga baax waaye kooku balaa nga koo gis di nga sonn waaye bis boo ko gisee jàppal na jaratul ngay sonn dara ci sa àdduna noo mën a def nag gaawantu nga gaaw delluwaat ñibbi moo gën ndax fii boo fi nekkee boo fi amee une semaine rek fi di fi jëlee la naqari wala da nga dégg ci sa njaboot la naqari bi nga soxna si waxee loolu nag mu daal di tiit ne ah yow soxna si li ngay wax rëy na di yow dèjà ki ngay wax xawma ma xaw ma fan laa koy gisee te man fii laay daane sama doole sama njaboot li may yónnee kas néew sama njaboot gi ci lañ leen di inscrire école te la ma sama mag gi di ma jàppale ci sama doom yi léegi su ma demee nan laay def ñoom nag soxna si ne ko li ma la wax de mooy li am soo ko gëmee mu am soo ko gëmul mooy am waaye nag li ma la wax muy dëgg dinaa fasante yow kóllëre nag. sa xel mi def nga ko ci man lool ndax bëgg nga ma ndax sama taar waaye nag juum nga ndax jigéen kenn du ko bëggee ab taar te li la gën a nar a sonal sa àdduna lool ci lay bokk sooy takk jabar takkal jabar ndax jikko yu baax waaye bu ko takk ndax taar yow ku jigéen ki tam booy dugg ci góor duggal duggal ci góor ndax jikkoom yu baax ak ngor ak njàmbaar gu ne ci moom nangoo liggéey nangoo sonn ci njabootam waaye bu dugg ci nit ndax taar wala succès tour wala daraja wala juddu wala alal yooyu yëpp daf lay sànq ndax li ngay xool ci noom loolu jaahir la baatin bi mooy jikkoom soo xamul jikkoom ba tax nga dugg ci moom nag sëy bi dana métti dana am jafe-jafe moo tax sëy yu bari di tas léegi léegi nag li ma lay conseillé lenn képp la mooy góor góorgóorlu bu baax nga gaawantu woo sa mag ji mu yónnee la xaalis ci liñ ko dénkoon mu yónnee la ci nga paas dellu bu fi yàgg. manam 24 heures bu ko fi defat so delo nak wëral marché sangam ak sangam bul taye mukk ko gis nit ku tok nga Yande, ko ne ñu wax Cheikh yande Cheikh yande bobu di jomb di nga dox ba ak mom bis boo ak mom nak sa ciono dal di jeex tàkk noonu nag Fodé wax ji dug ci xolam lool mu gëm ko lool nak deng dengi wu sax ngir def loolu waye nak mo bëgg ndaw ci yow yaay kan ak li yëpp noko xamé ak yow man nak sama digënté yow nak lay démé day continuer wala day jéx ndax gis na la taxaw ma ndax dina la gisaat noonu Fodé dal di xalaat lool ci xalam ndaw si ne ko bul caaxle sama digënté ak yow du jéx ndax loxo bi mala jox de tiyé ko ñu leeré ko kóllëre ak yalla rek motax dama lay dimbalé waaye nak dinañ tok jotaay yu bari man ak yow fo jaxlé itam ragal naa ne ma gis waaye naa la dénk ñaari mbir lépp loo gis ma wax la ko moo xam da koo gént moo xam da ko xeme moo xam da ko gis ma ne la fonkal ma loolu te muy mbóot wala muy sekkare sama diggante ak yow na nga sàmm loolu ba kenn du ko xam loo ca mën a góorgóorlu na ko góorgóorlu ndax kenn matul ku ne am na sikk su la yàlla bindee kenn matul ku ne am na sikk su la yàlla bindee beneen bi ma lay dénkaat mooy jigéen boo koy takk ko ngir ko ju baax waaye bu ko takk ngir ab taar fi muy terminé ak yow nag mooy sa njaboot nanga ci sonn waaye sonn sa njaboot góorgóorlu ci ñoom nekkul jox leen ñu lekk jox leen ñu naan fayal leen jàng kese déedéet del saytu seen ko seen nekkin bu ñu wétee lu ñuy wax ku ñuy jaxasool ba ci bu ñu tëddee ko di nelaw sax de leen bett di leen xool ci yan anam la ñuy tëddee ak yan anam la ñuy nelawee ndax njaboot su màggee nu mel rek yow la ndax nit ku ne sàmm nga te ëllëg sunu borom dana laaj naka nga sàmmee nit ki wax jooju dugg ci xolam kàddu yooyu mel ni ab bind bu ñu bind ci xolam boo xam ne du ko fàtte mukk mu téye ko bu baax a baax xelam dal lool yaakaaram dolleeku mu am cofe lool ci ndaw soosu ak mbégte lool ndeysaan waaye amoon tam xol bu naqari ci tàggoo gi mu naroon na tàggoo ak moom ndax ragal na ne gisaat ko du yomb comme gis na ko benn yoon Mali ca ko ci fañ doon defé fête ba bi ndaw si jógee taxaw mo nga xalat né ki de suma woné ginnaw ba mu ñibi Sénégal su ma fi ñëwaaté dama ko fekk ndax nit ñu melni nga gis leen gisaat leen sax lu jafe la doon té ba sañon tam ndaw ci nekk soxnam waaye amul pexé liko ndaw si wax rek lay mëna a jàpp noonu mu ne ko baax na dégg na li nga wax mu ne ko jërëjëf bul bu bul yàggantu nag jël sa temps bu bari té bu jaxlé dara jappal li mala wax rek ndax ndimbal la dama lay dimbalé té yalla rek tax ne ko jërëjëf merci daal di joxante ak moom loxo wan ko ginnaaw bi mu wanee ginnaaw nag dem dem dem ba génn baar bi Fodé nag jaaxle di xool fi ndaw si toogoon di xool nit ñi waaye li ko mooy li muy wax ak ndaw si gisul kenn ko leen ba xool leen nit ñi dañoo mel ni ñëw dañ leen a bi ndaw si wanee ginnaaw ba dem ba muy génn ci la commencé de seetlu ne nit ñi ñenn ñenn ñoo koy xool affaire bi bizarre ci moom mu génn na ginnaaw baar bi wër yoon bi ndaw si war a jaar waaye bi mu génnee gisul kenn gisul dara. mu yéemu lool nag noonu la gaawantoo woo mag ji waxtaan ak moom ne ko damaa bëgg a ñibbisi mag ji ne ko ah mbaa jàmm la mbaa da nga fa am problème mu ne ko amu fi benn problème jàmm ak salaam la xay na nag lépp lañ mën a wax waaye dama demoon ci benn seetkat rek mu doon ma seetal wax ma ne man sama wërsëg foofu la nekk wax ma itam ay mbir yoo xam ne war naa cee góorgóorlu ci liggéey su ma ñëwee yàlla mën na ma caa dimbale mag gi ne ko ah sa waay tamit ay seet kese damay bañ nga ñëw rek amaat jafe-jafe nga amoon comme yàlla def na ñu dajale nga fa dara te nga te ngaa toog góorgóorlu rek ba am dara ndeysaan mag ji moo ngi ko bëgg a jàppale waaye moom bëggula wax mag ji lu xew ndax ndaw si fasante fasante moom coloré te lim dund ak ndaw si secret la boobu bëggul nit xam ko dafa bëgg téye ko ci xolam jàpp ko ci xelam di ko dund waaye nit du ko xam noonu bi mbaabee mag ji mag ji mag ji convaincre mag ji ba mag ji d'accord xam ne nag moom magam jëm la ku dem ba am ñaari doom ne ko tooxale noonu mag ji daal di d'accord ne ko baax na daal di koy envoyé xaalis lu mën a paase noonu la Fodé gaawantu rek jël horaire bi fas yéene ñibbi si Sénégal ci yàlla mu nekkoon du yéeme lool. fii lañ yemale épisode 2 bi ñu jox leen dig daje épisode 3 bi ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. abonnez-vous sur Scène Productions pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.